alaykum suñu mbokku internet yi tay nak ñu ngi jëm ci geewul fa président Mamadou Gueye mi jité parti di convention citoyenne neneen mom nak ginaaw bi nga ni ci bi la baax na pour bi tournoi bi Gueye édition

don bi nga xamné bi euh, monsieur Guèye daf ko defal centre de santé de Géoul dafa melni euh dafa euh, xamone suñu soxla dafa melni kuka xamone de sorte que euh, li nga xamné li mom lañuy jox ñu ngi koy bége bu baax té di findal né euh danañ ko utiliser danañ ko conserver ba euh, askanu ngumba wi di ko jëriñoo euh, ay ay ati ati at lii ko ko defal commune ak population ngumba géewul dafa mel ne ñun aussi commune ak population wu sagata nga ko defal parce que ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk département de maire acte bi ki xalaat ba di ko def ëllëg su ko yàlla may doole wala pexe bu nga xam ne dina ci mën a gën a taxaw géewul gën ci mën a taxaw département de Kébémer ba population bi yëpp gis ci seen bopp su boobaa dina taxawee taxawaay boobu kon dañuy rafetlu bu baax a baax a baax li nga xam ne moom la def di ko ci encouragé di ko wax ne aussi lii mooy yoon wi nii rek la amal nit ñi njëriñ amal population bi njëriñ mooy tax soo waxee soo jógee rek population bi déglu la jóg ànd ak yow. suñu mbokk internet bi ñu ci Ngoumba Ngeewul dañ daal di ci Kébémer Kébémer nak li fa xew di finalu département ba dal dina ñuy ñëwaat ci li wara ñu taamu ko ngir mu nekk parrain wu édition 2017 di final départemental bu mer. waye bo gisee li fi xew dëkk bi merewuñu ko ndax lu ma saam lu ne indi na ko fi la duggé alcorane fi la jàngee école bi ma amee bi ma amee yàlla jógale tam mu dem Pikine la mu yam mu am ko dafa dellu soit gumba gi xam si fi la léppam nekk ànd ak lu xew moog waa gumba bokkam yi ci fi nekk seetaanu ci kenn jàmbur yi seetaanu ci kenn naam moom jàmbur amul ci moom ndax ñëpp ay bokkam lañu ci bindoom ci yaram ci tegginam ci amuk taalibeem bëgg nag Sénégal développé Modou moom ku ko xam-xam ni ci développement lay dox te gars yi dañ ne li ngay dàq kéwél mu jëm àll nga dàq ko mu dugg ci kër gi ku nekk xam ni xam na Modou fi mu teg waa Ngumba Ngéewul kenn ku nekk xam na Modou lan mooy initiative yi mu am envers Ngumba kenn ku nekk xam na lan mooy projet yi mu am enver Ngumba Modou boo waxee mun la man Ngumba laa juddoo mais pikin laa màggee nit nag nit ku baax da ngay xam fi nga jóge xam fi nga jëm te am ci yaakaar. parce que si avez nit ñi gens la la dimbali vraiment ça c'est une très bonne initiative. Nous sommes ci nguma ngeewul nga fi la dogal ma fi euh, samay euh, aussi un tournoi bo ren deuxième édition wam ñu tuddé ko tournoi Mamadou Gueye euh, ma vraiment am beaucoup bu baax communier ak jeunesse communier ak jeunesse département

ñu ñëw tey jii nii ak ñom ñëw aussi def ko occasion andalé euh, ak wa centre de santé de Géoul am benn fourniture de dons bu ñu doon def ben lot de matériel matériel médical lool aussi nekk euh, mbecté ci ñun ñu mëna accompagner population yi ci seen i ci seen soxla ci li nga xamante ci si moy ñaari aspect yi ñu gëna ñor ci population bi tey jii nii éducation moy santé parce que ñaari fu mu taxawul rek développement mu na fa am sport aussi dafay accompagner jeunesse dafay assainir jeunesse dafa nek lo xamne ne dafay def valeur yi ñu soxla ci ndaw yi motax ñun aussi ñu taamu sport yenn say pour jallale ci mu nek vecteur pour ñu jallale ci valeur citoyenne yo nga xamne mom lañuy la mom lañu bëgg suñu ndaw yépp am ko. motax tay ji ñu organiser tournoi bi vraiment am mbégte bu baax ci réussite biñ ci gis mu andi comme ni nga ko gisee foule bu yaatu vraiment mu nek lu sedd suñu xol lool.